suwaat comme ni ñu ko tàmbaloo ak yéen ni kii démb si altine ji noonu mbokk yi la ñëw ak yéen talaata ji ñu leen ñaanal talaata wu jàmm ak salaam waaye kenn du jàmm ak salaam également notre compagnie euh, soxna Thiaba moo doon nuyoo noonu euh, fegoog ak ña nga xam ne ñoo fare ci wàllu xarale gi fas yéene ñu gunge euh, fii bu ba ñuy jeexal doore ko si yaayu xale yi di ajaratu Penda Diallo gi Ndioro Basi ko ji Adama mi ngi fegoog kookee di Jacques ak Gabriel Préra mbokk yi ñu wax leen programme yor yoru talaata tey jii ana naka la na ma tëddee ñaar ci ay pàcc la bi si jiitu mooy waxtaanu ayu bés bi mam mbégte ak bànneex bu yaatu di si ànd ak moom ni ma ko baaxoo di ko def ak moom altine bal xamis si waxtu wii di kilifa doomu reefaan rafetlu xam-xamam moor Mor Joonu Daali Bugar ak man juk waaye jàpp leen man ak moom du ñu wet benn yoon ci jotaay lii am na ndaanaan bu ñu fekk si casquette yi bari na comédien la politicien la waaye itam tey dañu koy invité en tan que père de famille moom Laye Ndiaye Laye kon moo na ma feggoo ak ñun man ak Baye Mor ñaareelu pàcc li pàcc lu mujj li mooy pàcc bi ñu jël jagleel ko suñu mbokk hip hopeurs yi hip hop made in Galsen rap made in Jolof hip hop sans visa ak l'homme de one mic général bandi mix moom di ji Paco ak suñu gan Messi yang ji la nam ma doon sans plus tarder door waxtaan ay ba bi Baye Mor asalaamualeykum. maanaam ahousu billahi mina wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyyatahaa mina shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillaahi rahmaani rahiim laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil aliyyil aziim rabbi ishrah li sadrii wa yassir li amrii wahlul uqdatan min lisaanii yafqahuu qawlii saddid lisaanii nawwir janaanii saffil amaanii wasid baraay assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatuh. Waaleykum salaam wa rahmatullaahi taalaa wa barakaatuh. waaw ah, soxna Thiaba ñu ngi lay nuyu. di la fay di la ñaanal tawfeex. amiin ko ñaanal sa borom kër. allahumma leen ci saytaane ak ndog-ndog yi jamono. amiin yaa rabbal nekk noonu maman Ndoye ñu koy ziar di ko ñaanal gudd fan ak wér. sama eh, di ziar suñu mbokk suñu xarit. Mm-hmm. Eh, di ko dalal jam mm-hmm. di kontaan ci fegoog moom. ci plateau bi. Mm-hmm. di ko ñaanal tawfeex moom ak njabootam yëpp yàlla may ko gudd fan ak wér waaye di ziar ajaratu Penda Diallo Gueye di ko mhm. ñaanal tawfeex mook mhm. alaaji Adama Gueye eh, nak noonu Jacques Gabriel Pereira alaaji Modou Fall mhm. Barak Mbaye Aline Diop ñoo leen di ziar waaye di ziar kilifa diine yi di leen ñaanal gudd fan ak wér bi yéen bi tegu seen kaw ñu mën ko yobu fu kawe seen doom waaye di ñaanal kilifa aada yi yàlla may leen wér ak kattan ba yaakaar ji askan bi am ñoom bañ a tas waaye di ñaanal ñi nga xam ne ñoo taamu ànd ak ci waxtu yi fu ñu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñoom leen di ziar leen ñaanal jàmm mm-hmm. lépp lu ñu yëngu yal ci yàlla def barke dañ ci sotra sàmm waa réew mi yëpp rek euh, li nga xamante ne nii euh, euh, muy maladie boo xamante ne mm-hmm. nii day na waar lembe na adduna moom la ñuy léegi tey waaw jaaxal na ñëpp ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa mu saafaraal ñu ko ñu ñëpp rek allahumma min tabarkàlla bi am na solo ñaan yi itam am na solo yal na yàlla ko ñu bokk ko ñu ñëpp Baye Mor euh, jërëjëf euh, suñu gan euh, wax naa ne moom nekkul sax gan ci kër gi wax dëgg nag yàlla <laughs> <laughs> moom min na kër gi nañ ko ci kër gi si kër gi waaye nag waaye dafee gëj li ko waral nag gannaaw ba ñu ko nuyoo xëñ na nuyu ko dalal ko tatagal ko dañ ko bàyyi mu nuyu mbokk téléspectateur yi waaye itam laat ñuy sóobu ak moom ci waxtaan wi dinañu wax ana lan moo tax mu gëj këram. Euh, waaw jërëjëf Thiaba ma kontaan ci parce que yow may invité tey dafa am solo. kon yaa ma indiwaat ci kër gi. waay <laughs> indiwaat comme yéen mënoon ci kër gi wootu leen ma ci kër gi mën naa toog. <laughs> ah kon dañ laa wootul. da ngeen ma wootul yaa wax lii. aw Diop Ndiaye daan na ma woo. si kër gi sa kër aw Diop Ndiaye nag dama daan woo. kon da laa yaay naas. Eh, sama xarit kii Biti. Biti mbub tamit dana daan woo dama daan woo. wootu la. saa njóogu moom sama waay la mais moom benn affaire. moom mën na lu ne. waaw mën na lu ne waaw. moom mën na ci dugg génn ci léegi. maa la ko wax waaw. du kontaan trop nag parce que télé bi mën naa ne sama télé la. dëgg la. et puis même y' a beaucoup de gens su ñëwee sama kër la ñu yow lan nga gis si Walfadjri. parce que. dama koy poussé ba pare ñëpp xam nañu quoi man Walf su ma ñëwee dugg si li ma njëkk a lépp lu may seetaan wal faj laa ko seetaanee donc mu ne sama télé kon ma rafetoon tout le temps may ñëw fii daan waxtaan xalaat li ñu indi tey nag mu nekk émission bi may tey mu am solo parce que dama naan souvent mhm. ñu fépp xel moo tax ñuy woo déedéet mhm. dafa tombe rek ñu woo ñu mhm. suñ fi ñëwee tooguñ fi ñu woo xel mais dañ toog toog pour génne suñu xalaat bàyyi mu la génne xalaatam ca ba génne xalaatam ñuy woote génne seen xalaat ñu dajale ko seen ah. ñu defare Sénégal war mu njëkkati bien que démb rek am na lu ma wax sax waaye àndoo si ak man waaye incha allah laat ñu si sóobu ku ne xam na ne jàngoro moom wax ma la lëmbee na réew mi waaye dafa lëmbee àddina coow li bari na lool coow li nee na kur boobu ba léegi daal ñu ngi naan ma nga diwaan bëre ma nga euh, région ma ma nga réew male réew yooyu waaye dafa mel ni daanaka dégg nañu ko suñu réew mi ni ki démb euh, Baye Mor boo seetloo sa suba gi laat ñu tàmbali man ak yow émission bi ah, xaw mhm. ñemew ma koon wax parce que aw ma si lu ma wóor mhm. bu ñooñu juumee mhm. daañu daañu juumaale la moo tax ma daal di noppi waaye ba mañ wàccee ba si ngoon gi laay gën a dégg yi fi kur man a ah, wax yaa nga ah, du génn si man tabarka waaw xam nga euh, ci nekk rek dafa am kuñ ko dénk kooku amee responsabilité war cee wax boo jiitoo nga wax mu jiitu kàddoom mën naa am leneen te itam dañ ne bu ñëpp di wax itam am na ñoo xam ne seeni wax dañ daan picc fukki picc bu ñu naawandoo bu yëpp ñuulee bu ca rek yow la ñuy yóbbaale loolu nag mooy loolu xëy na yow soo toogoon nga jëlale ko dinañ ñëpp dañu wax ne ci cabalañ ko dégg léegi loolu nag mën naa nekk su demee bu <laughs> xibaar boobu ñu vérifié ko wérul hmm. bu boobaa day dellu si waat ci mu nga wax loolu yëpp tam njëkkante siiwal dara <laughs> euh, jarul na nga xaar ba fa mu war a jógee mu fa mm. parce que bu jógee ci kilifa yi nga xam ne surtout lu mel ni nga xam ne épidémie la boo xam ne mhm. dafay tiital askan mhm. léeg-léeg bu ñu ko déggee ne am na ci dëkk nga jëkk koo annoncé mhm. dafay doy waar mais nag bu kilifa yi toogee wax ci nga doog cee wax loolu moom mooy li nga xam ne moo jaar yoon ndax kenn ku ci nekk rek am na lu ñu la denk lu ñu la cërale loolu sañ nga caa wax kon daal loolu sante naa ko borom bi subhanahu wa taala ndax moo ma noppiloo mm, waaw waaw moom mi la may xel bu tax nga mën a lii kat waruma ko jëlale te itam loolu dafay baax ci képp koo xam ne da ngay wax ci média ngay bàyyi xel lii may wax ndax man maa ko war a wax wala damaa war a tekkandiku mm. ba am lu leer ma doog ko wax mm. loolu may di njëkkante rek wax dara mm. loolu day indi beneen jafe-jafe mm-hmm. parce que comme noonu nga ko waxee noonu mm-hmm. démb am na lu ñu ci jot a junj ci wax mm-hmm. beneen ñoom ñoo ñu gën a informé xam nga noonu ne la kilifa gi bi muy wax am na nu mu waxee xëy na waxin bu njëkk ba nit ñi dégguñu ko ca na mu ko waxee mhm. moo tax ndey du moyen pour dem jëli ñi fa nekk loolu du nekkul Sénégal bu ñàkkee loolu kon boobaa nekkatul réew boo xamante ne dañ ko mën a respecté ci mhm, àdduna mhm. waaw kon loolu du nekkul mais li nekkoon mooy ana ñee boo leen jëlee ànd leen ñu àndaale maladie boobu noonu nakk nga leen di gérer fitna boobu ngay andiwaat ci population bi léegi loolu day doon loo xamante ne lu naqaree gérer la. Mm. loolu moo taxoon xëy na moom muy kii mais nag ci waxin bi nit ñi mënuñu ko woon a dégg foofu moo tax ma noonu waroon nañoo yaatal waxin bi. Mm-hmm. wax ko ci wax boo xam ne dina gën a leer ci bopp nit ñi. Mm. waaye lu ñuy gën a dem ci kanam nit ñi di gën a comprendre xam nga yooyu yëpp boobu xibaar yi mu ngiy wàcc ci suuf mais amuñu droit yëkkati ko ci kaw mhm, mhm. moo tax ñuy junj <laughs> naa leen ñooñu gën a am information pour mhm. ku ci nekk xam ne loo am am information ñoom ñoo la gën a am information kon lu tax ñu teegun affaire bi di kii kii mooy wax bi ñu ko wax nañ ko bàyyi ak ñoom lu ñu jot dañ ko wax tabarkàlla macha allah wax ji rafet na euh, Laye Ndiaye euh, benn benn bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku fii suñu réewu Sénégal Euh, ba nga ko déggee ana naka nga réagir noo def. non non mënuma réagir na dul au moins euh, lu gàtt gàtt def na au moins vingt cinq ans chirurgie. Mhm, donc mënuma ñàkk xam ci affaire bi. Mhm. il faut les gens comprennent aussi mhm. que euh, Sénégal du un pays particulier ñu ñu nag àdduna ñëpp a yem. ñu ne ñëpp a yem. feebar bi lu existe la. lu am la. feebar fi jaar nii la demee woon ba ñu fexe di topp tontu gëstu gëstu ba trouvé la koy fekk bi itam noonu lay demee te li ñu ci mën a dimbale rek mooy ñu déggante waxante waxante mooy par exemple ku ne dimbale sa morom dimbale sa morom si nen mooy que par exemple ñu jël toutes les précautions yi nga xam parce que war na mën a tax par exemple ñu aar feebar bi par rapport ak suñu société ñu def ko mais du yomb Sénégal mhm. parce que les gens sont ah bon ñàkk yar ah. si. feebar yu bare bari bari parce que xam nga suñu ne parce que defal nii feebar bi bu bañ la dal. nga bañ ko defee indiscipline la. ah est-ce que xam-xam ci loolu su xarañee ci loolu. Mm-hmm. wax la ne su ma soobee nga defal nii nga ñàkk ko defee. Mm-hmm. fi nii yeneen. Mm-hmm. parce que feebar bi am na existe na. y des gens qui disent est-ce que am na. am na. Ah, am na ñu koy laam y a des gens qui se que am na. mais am na. bu amuloon par exemple tout ce tralala ak brouhaha bi am tey oh. ci affaire du ci am. même sida bi mu doog a des noonu lañ doon wax. Mm-hmm. est am na. Mm-hmm. yaa ngi dégg réellement am na. Mm-hmm. ne bi dañ nekk ñu pour jëmale xaalis ak yooyu pour def ko. Ah, déedéet lu existe la. ni ñu koy may na ñu aar ko. cet. surtout cet. yaa ngi dégg. nattu nag mën a dal ku ne. parce que mën nga tombeek foo xam par exemple ñu ne da nga nekk si à la euh, la place boo xam ne au moment où l'accès produit mu dal la. yaa parce que ki muy dal du ko coobare mu dal ko. Mhm. ki mu kii wàll aussi du coobare mu wàll ko. Mhm. gis naa ay ñoo wanoon sax ci net bi naan waaye dañu ci ascenseur yooyu ay ay montage mu ne ascenseur. non mënul ne. <laughs> non il faut te ku pour soo ñu teg sa loxo. affaire wàll la. non non c'est que mënul dina noonu quoi. <laughs> et puis de mës a dégg benn wax sëñ bu dëgër. Mm. ne bon pour nit mën naa bon. foog nga mën a ñàkk war mën a wax dëgg pour nit mën na ñàkk wax dëgg mm-hmm. boo dee tudd dëgg ku wax nga dëgg la mm-hmm. nga dégg ku la yedd nga xam ne par exemple kii li mu la yedd sa la mm-hmm. ku la ci li mu xarañ ëppale la ci xam ci wax la ci mais topp ko rek day ñëw nag feew day ñëw te trouvé gu ñu garab bi koy faj trouvé gu ñu vaccin bi kon li ñu war mooy par exemple ñu jéem ñi war ñu yor yor loolu au niveau du ministère de la def ci communication bu baree bare ba a mën bi mhm. ak feebar nan lay ñëwee mhm. parce que nit ñi boo leen expliqué par exemple feebar nan lay ñëwee rek mhm. ñu ci baree bare ñu ci bari am nañu toogee ñu ci bari ay précautions ay France ay yeneen dëkk yoo xam seen école arrêté nañ ko manifestation yi amoon tey soo noonu nañ ko arrêté tey coow jub mu ñu arrangé ci ko parce biir seen manifestation mag fu nañu dajaloo feebar wàllante fa dafa yomb parce que doo xam kan mooy ñëw te xam nga li gën a grave ci feebar mooy dafa nit ñoo xam ne souvent ils ont le microbe ak ñoom mais ils font la maladie c'est on les appelle les porteurs sains ñooñu ils transmettent la maladie sans transférer la maladie donc ce qui veut dire que ñooñu bu jege mën leen transmettre la maladie bi mais ñoom duñu feebar kon ci mbooloo ñooñu bu ñu ñibbee ku ne commencé aussi transmettre. fekk na yow yow du la daaneel. waaw te man si sida si leneen ci yëpp yem. am na ñoo xam ne am nañ sida jusqu'à l'heure moo du leen feebar du leen tëral. on les appelle les porteurs sains. dañu koy calculer ak microbe bu duggee ci yow ak temps muy def pour temps d'incubation muy def par exemple pour daaneel la. Mhm. dafa am dafa am ay jours. ñu ne ne ay 7 jours ne 14 jours ñu ne ne 15 jours ainsi de suite mais c'est pas important mais am importance sax ñu fexe fagaru. ba xam ni ñu koy aaree bu ñëwee tam. mënuñ ñàkk yegg si suñu xam naa ne fi yegg mm-hmm. si. te si na fa pare. ñoo xam ne ñu koy aar ñu taxawoo. Mm-hmm. tabarkàlla mm-hmm. oyof oh, trop ci ñun egsi na fi ba noppi waaye ñu fàttali mbokk téléspectateurs yi euh, cas bi ñu nemmeeku ci réew bu Sénégal bi euh, doomu na sa doomu doomu biti réew la doomu mm-hmm. France la te ñu mm-hmm. wax ne ma ngi bàyyeekoo ci région bi nga xam ne c'est la euh, plus touchée ñu ngi ko wax ci wàllu jàngoro beeg yooyu xaw ma nag lu avéré la ou pas waaye en tout cas ñenn ñi dem nañ sax bay joxoñ baaraam tuuma parce que fi nga daaneel rek laay waxee nekkul ci saasa rek nga koy dal di nemmeeku ñoom am nañu ay jum jumtukaay yu nga xam ne teg nañu pour mën détecter yëf yi si boo ñëwee wàcc si aéroport beeg yooyu waaye da ngay moo tax kon kooku ñu bàyyi ko mu jàll mhm. ñu fàttali nag télé yëf yi mën na bañ a ama gum si mhm. mën na si saa si noonu ah, mën na laa bañ a kiiwagum noonu température bi mën naa bañ a yéegagum waaw nga dem ba sa kër ba toog ay ay mhm. benn fan wala dara muy soog a ñëw comme ni mu ko waxee léegi yooyu kon des fois aussi euh, loolu itam ñu ñu bàyyi ko xel day daal di jaadu euh, bay moor loo si mën a indi waaw comme euh, sëñ bi ni mu waxee léegi rek ñu bàyyi xel ci yu mel nii bu amee ñëpp jóg di ci wax te fekk na maîtriser wuñu ko. dama riirandoo bi. voilà hmm. ndax tey boo xoolee ku nekk ngi andi sa façon ndax ñëpp ñoo ci war a wax wala daa am ñoo xam ne ñoo ci war a wax ñi nga xam ne seen xam-xam def ci màcc ñooñu war nañ cee mën a wax ndax lu tax kiy wax ci lu mu xam ñaare njuumte du ci yomb waaye ki wax lu mu xamut nag man moom réer na ba noppi mu ngi réeral keneen koo xam ne mu ngi koy déglu. te li may wax rek kaddu gu nekk su jógee am na ñu koy dégg. Mhm. gëm ko mhm. jàpp ko am ca pas-pas. Mhm. bu fekkee kaddu booba nag dafa dëng bu boobaa da ngay loraale ñooñu nga xam ne ñoo ko doon déglu. kon ku ci nekk itam nga xam ne rek mbir mi ñëw na ci ñun. ba mu soree it lañ doon ah sori nañu waaye jéggi nañu. Chine ah, sori na mais jéggi nañ ndax épidémie bu amee. ci àdduna bi àdduna bi léegi benn kër la. benn kër la moo tax mënatoo wax ne rek mu nga fale sori na ma sama yoon nekku ci. toujours bi ñuy doog a tàmbali daan naa ko junj fii mhm. ci kaw xamle ne rek yaa ngi ko seen mu sori waaye jàppal ne mu ngi ci yow bu boobaa itam mu bañ a doon loo xam ne dañu koy def mu nekk lu ñuy foye wala lu ñuy def comme ñu xam ne lu sérieux la ndax fa mu am bu ñu laalul ci ci ci nii mu laalul ci neneen mhm. mooy suñu poste Mhm. parce que économique Chine dafa nekk euh, réew boo xam ne. Mhm. dafa am solo ci économie ko adduna bi ñëpp la laal. Mhm. kon su fekkente ne lu mel noonu daal na fa. même bu fekkente ne dalu la ci sa yaram dal na la ci sa poos te itam poos bi bu yàggee day fekk si waat yaram bi. ndax nag faw nga am dara pour mën a dund. kon yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne nii euh, law na ba agsi. ni muy agsee nag agsi na ñaar mooy. mu ngi dem ci yeneen réew yoo xam ne bu fekkente ne fagaru bi ñuy wax rek. ñoom ñoo ñu ëpp moyen. moo ma waaw. te te mu jëkk a dal ci seen réew yooyu noonu. kon nag li ñuy jëkk a jàng mooy est-ce que ndax fagaru bi rek du doy fagaru bi baax na nañ ko jiital ndax loolu mooy def li nga war a def. waaw mais bu ñu fagaroo ba noppi itam ku nekk respecté la nga war a respecté. Mm, bañ ku nekk jóg rek di yëkkati kàddu naan bu ngeen defee lii du am bu ngeen defee lii du am bu ngeen defee lii du am d' accord ñenn ñi laay biir lañ koy nekkul mu mbiru euh, borom bi subxanahu moo dikk rek loolu moo tax. ku nekk boo waree dem ala kulli xaal faaw nga dem te ak fa nga war a demee ak na nga war a demee. parce que daw ko ba kii tamit wala. noonu li ñu koy gëmee mooy. <laughs> waaw li ñuy gëmee loolu mooy. Ah. Euh, noonu li ñuy gëmee loolu parce que lii biir yàlla la de. Chine boobu nga xam ne fa la fa la juddoo. am na ñu fa nekk di fa dund boobu ba léegi te daal. dara jot leen mu jóge fa dem ci beneen réew boo xam ne ay mille kilomètres moo hmm. nekk seen diggante ñoo ñooñu am ko am te ñu fa faatu hmm. mu romb yeneen dëkk yoo xamante ne ñoo gën a jege hmm. kon nag doon na loo xamante ne day wale lu du wàccee nag kenn xamut lu koy faj loolu lu ñu ko mën a waxee mooy balaa la ba la nit léegi nag kan la yàlla di dey secret bi nga xam ne moom mooy saafara li dégg naa dañu ne fi nekk ñetti weer ndax dëgg la wala du dëgg ndam li nga xam ne amoon nañ ko ca ba kaawu Ebola bi amee fii si réewum Sénégal ña ña ña faree si wàllu wér-gu-yaram bi mhm. ndax ndam boobu dinañ ko amaat ci wàll wi kii si cas bi nga xam ne moo moom la ñu am euh, ah, ñu ngi xool di ñaan di la ñaanal nag yàlla jàppale leen ba cas boobu rek mu daal di mucc te itam ña nga xam ne ñoom la nekk lool parce que dañuy wax ne njabootam mi ngi fii ñaar la wax si ay doomam mhm. ak soxnaam ak yooyu mhm. ak ñamu bokkaloon roppalaan bi itam mhm. kaka indi ndax particulier la wala taxi la ku nekk yaa coow li bari na ku nekk naan noo koy xamee taxi ban la bu waree ñëw daal ñëw na yu mën ko simple rek wala non non c'est-à-dire que c'est-à-dire que xam nga Sénégal équipe nationale bu football ñëpp entraîneur yaa wax lii bu amee un problème de droit ñëpp juriste la ñu doon <laughs> bu amee médical ñëpp médecin la ñu doon et c'est ça qui dangereux Mhm. mbir bu amee dafa ñu ci war a wax a ñu ci a wax. seen xam-xam màcc jëmale. et puis ñu wóor leen bàyyi leen parce que ñoom loolu lañ jàng xam ko. Mhm. yaa ngi dégg loolu lañ jàng xam ko. Mhm. xam nga doomu jàng grippe bi ñuy def grippe bu dal ni ñun. te sama ba tey bokkul. ah ok grippe influenza moo koy causé. Mm-hmm. Mm-hmm. palu euh, plasmodium falciparum moo koy causé. Mm-hmm. donc ce qui def bokkuñu leen dal. te doomu jàngoro grippe bi ñuy dal ñun ba tey. doomu jàngoro boobu amul garab ba tey. soo suñu ñu bindal la ordonnance ne. dañuy bindal dañuy pour lu yokk doole sa yaram rek pour mu xeex doomu jàngoro bi wàññi dooleem. mais amul garab ku yore ba tey. virusu grippe ak virus sida parce que benn la. yaa non benn la. yaa ngi dégg mais nag. am nga nooy traité malade bi jox ko doole joxam parce que mën mu wàññeeku. Mhm. le su ñëw moom su ñëwee moom day ñëw sida moom su ñëwee day mel ni rek ku dugg ci dëkk rey militaire yi rey gendarme yi rey policiers yi ñëpp. Ah, après ah. armée dugg leen. Ah. armée bu dugg liggéey moom quoi. Mhm. te di tout tout ce qui défense mhm. donc ñun jàngoro bi yegsi na euh, coronavirus. ñëw na ma de bu gars yi communiqué ci bien. communication bi la surtout communiqué bien. et puis bu tay à tout moment. à la télé comme à la nañ ciy wax. yéen ñi di wax parce que àgg parce que xam nga mënuñu ñàkk a duggandoo si bus yi. mënuñu ñàkk a duggandoo tataay yi. ñàkk mënuñu ñàkk a duggandoo si njaganjaay yi. kon boog dem dikk yi donc ce qui dit que ñun war nañu préparer à ça que. benn nit wu ci biir car bi. ñu bu bañ xam ku ne dal am na ñuy defee. Ah. ñoo xam au moins. dañ sarne car bi ba xam au moins sax kooku réellement loolu am na wala amul. Mhm. ñu xam c'est am na ñu fa nekk ñu contacté leen seet leen ndax kenn amu ko ci parce que dafa doy affaire dafa doy waar mm. koy joxe mooy ay euh, ngay nooy nii rek ngay jël euh, feebar bi waaw wala nga waxee nii rek guddi la di def si si si si si booram rek mën na jël feebar bi mm-hmm. Mm-hmm. moo tax c'est très compliqué mm-hmm. c'est très compliqué donc li ñu mën rek il faut une communication pour génn ñu ci lu bare bare bare ci mbir mi mais nag sànq dama doon nuyu nuyu moom soxna si ah. <laughs> wuy ma non non non nuyu woon si. jigéen day joge waaye góor yi day joge de. Ah, tabaarkàlla bisimilah soxna si. bisimilah bu baax. am nga ci droit nuyu sama doom yi aussi. Mhm. nekk bitim réew nekk Sénégal. macha allah nuyu sama euh, waa kër fii Derklés Tamarit. Mhm. ñoom yaay. Mhm. ak sama séeréer fan ñoom Bira. ñoom Mengas euh, fële Stade Amitié. ak sama goro yi. ñoom Soda Ndiaye autre ak ñëpp ñu ma reconnaître ci télé bi maa nga xam ne noonu si par exemple suñu toogee rek yéen lañ fi toog non yow moom ñëpp la xàmmee tabarkalla yow moom ndax danga ñoo yàgg bégal yàgg ñoo ginde si lu bari bari si ay théâtre yooyu moo tax sax sànq nee na politicien bi comédien bi maanaam tey dañu en tant que père de famille xam naa du ñàkk des tuuti ñu àbb casquette comédien bi aussi mmh. parce que des fois si ay euh, si seen ay li ngeen ci amal ak yooyu mmh. euh, di ci faral di jouer yi ni war a liggéey ci lu jëm ci li ci communication. pour yee askan bi. daf ñu war. parce que dëgg boo ci nekkee li li waa ji ne woon bul xaar réew mën defal may xool lan nga mën defal réew mi. fa lañ toll tey. ñu fay leen wala kenn du leen fay. non même ñu bañ la fay sax war nga ci mën a uh-huh. liggéey. nga ci mën liggéey wax ci. wala def ci loo xam par exemple tey nañ xam ne askan bi kat bañ toll ci lii. Uh-huh. diw lii lañ taxaw woon uh-huh. moom solo ci àddina. jàppalante muñalante dimbalante kese. loolu moo ñu ci mën génne mais sans la kone ne bëgg toog këram ne man kenn la. dana jóge falaaw ba dugg sa kër du ci man dara. dégg nga waaw euh, mel ni nag lu jafe-jafe-jafe ci ci li nga wax nii ndax euh, ni ñuy amalee suñuy demalanteeg dikkalante. ni nga xam ne nii lañu suñuy famille ni ñu tamee dundee ensemble. loolu dafay doon loo xam ne lu doy waar la ci comme li nga doon expliquer nii. Mm-hmm. pour mën a wattandeku diggante yooyu am. tey beneen keneen dana soj. waaw waaw. Ah, ñu daw ko. rek nga gis ko sax. ak parce que boo xoolee sax rek ci net bi yaa ngi gis am na mm. kilifa goo xam ne gis nañ ko muy saxat rek ñu jël ko dugal ko di ko partagé. dégg nga waaw. naa na dem xooli lu tax muy sakkat. waaw dégg nga gis nga wuy ma nag gars gis nga nag gis nga ah. am na yoo xam ne nag dañ ko war a lijjanti benn mm, yoon nii lañ fi defoon jël papay jàmbur ah. jël maamu jàmbur jël nijaayi jàmbur jël frère jàmbur ñu teg ko si internet dégg si internet bi di ko partagé. naan ba ba pare koy booleeg benn audio. naan ko gis ngeen kii ngi nii bu la nuyoo rek. Mm. lépp lu nekkoon ci yow danga nga ko da nga koy ñàkk. te fekk yow kooku yéegul tunu. waaw ah, fi ne ñu ngi ñoom ñu ngi mer. ba ñaan dañuy amal ay plainte ak ay yooyu. xam nga am na yoo xam ne tam tooñ baaxul daal di gàllaaj. léegi kooku noonu mën na nekk victime ci loolu parce que mën na génn fen ñu parce que ni demee rek ñu ne eh, ay ngi nii paa baa ngi nii waaw di ko joxoñ awak moom yoon woo xam ne du du du du jaadu mën nañ ko agressé mën nañ koo gaañ mën nañ ko bakkanam sa xëj hmm. kon dafa am yoo xam ne des ko fooye te itam réew mi dañoo war a xame xamee mooy lan gis nga lii du lu ñuy fooye lu hmm, sérieux la loo xamante ne ni mu ngi rey ay doomu aadama mu ngi teral ay doomu aadama mu ngi hmm. yàq économique réew yëpp ku loolu su duggee ci dëkk ku ci nekk war ngaa xam ne lii doonut lu ñuy fooye doonatul loo xamante ne ni lu ñuy teb rek di ko gaaw a tuumaale nit tam parce que hmm. loolu mooy li nga li li ñu bëgg a seppi ci kàddu yi nga hmm. indi léegi man hmm. ngeen a bokk ci bus wala yeneen wala marché euh, kooku jékki-jékki rek ti soli yàgg na fi ñu daal di ne ah moom kat dafa amee parce que gis nga kilifa gii ma lay wax ni kilifa gu mag la ci réew mi ay yow wax ah fii kilifa gu mag la ko jege président la. Ah. mais di di ñu ngi ko fa def ki yam di ko déglu ci net bi naan naan dem lijjanti ji. waaw dégg nga loolu muy sàkkat lan la. est ce que du na fa am virus wala déet. xam nga ñoom dañuy fàtte yéen bi la. voilà léegi borom fanaan de. mu nga ko yooyu noonu nga xam ne mu ngi tàmbali di law bu ko keneen gisee tey. man su ma génnee dox ci mbed mi wala ma dugg si oto wala kii rek ma jékki-jékki tisol yi naturel ñu ne non non kii dafa ame kii wala nga sàqat ñu ne nangam te ñooy dajee ci béréb bi gis na lu tax ba nak nak ndax suñu jumaa yi dañu koy teg ba duñu fa daje est-ce que euh, ñu nga xam ne dañuy dem église dañuy toog ne dootuñu dem église dafa am yoo xamante ne yu bëri yoo xamante ne nii askan bi dañ koy mm, jëflante ci suñu diine ak yeneen ak ci dem ci marché yeeg yooyu yëpp mënuñu faa ñàkkar yi mm-hmm. amuñu moyen transport bi faw ñuy bokk est-ce que méttuwaay yo war ca ndax kuy dugg ci tata di nga fa fekk euh, jumtukaay yoo xamante ne dina la mën a aar ci loolu wala déet loolu yëpp dafa doon loo xamante ne nii euh, moyen ya ko war a def est-ce que ñun suñu état pare woon na pour moyens yu mën a nekk parce que lu bëri ñu ko doon nimeku itam nag ci waru euh, euh, euh, faj mi yu bëri yoo xam ne sooxe na ci yu manqué yoo xam ne amu fa kon yu mel nii su amee dafay laajaat leneen loo xamante ne nii peut-être ñi nga xam ne yàlla may na leen seen loxo jot seen mhm. gannaaw ñu am dara lu ñu mën a kii ñu jege état bi jàppale ko itam mhm. parce que dafa am lu mu laaj nag mhm. tey nag bu kër xasee tàkk bu nekk takkee ci benn kër bu kenn jàpp ne rek. mucc nga nekk bi lay takkee na jàpp ne mën naa law bu dugg ci yow. Mhm. kon boobaa na nga teel a jóg fay foofu noonu bu ko defee xëy na euh, loraange bi du sori. d'accord kon kon bu jeexalee foofu euh, Laye Ndiaye si foofu rek ngay daal di àddoo ndax ku ne xam na ne def nga at yu bari bari yaa ngi koy sànq 25 ans si wàllu wér gu yaram wàllu santé beeg yooyu ana ban euh, ban tontu nga ciy indi si li Baye indi. li Baye indi mooy xam leen rek moo ko mën a faj. waaw mooy. dama naan souvent yàlla kenn du ko ñaan ñuy ree. kenn ko ñaan. waaw te moo ne ñaan leen ma may leen sant leen ma ma dolli leen. may ñëw dégg na laaj. Ah. dégg na laaj xam nga yàlla ni ñu koy ñaane mooy yàlla ma yàlla fay sama xol. waaye moom ko mënee ma mën ko yow nga mën ko. rek kenn ñu dégg. kon lu mu am jàppale la ci bàyyi bu nu am jàppale ma ci. yaa bu ñu dundee woon noonu tey dundu Sénégal fexe parce que réew islam bi ñu wax ci ñoon su ñu ko dundee woon par lu bari bari sori ci ñun. réew diine bi ñu tey lu bari bari sori. nee nañ mais dañ koy wax nii mais dunduñu ko. xam dama naan souvent jàmm kenn ku ñaan mais dañ koy dund. nañ ñaan jàll jàmm. te bu génn ci benn bu jàmm di doon te di doorante jàmm du am mukk. yàlla li ñu koy ñaan ko koy jëli. yàlla li ñu koy ñaan yaa koy jëli di ma dégg na laaj dafa da ngay sabab lu daal yàlla mën laa jàppale. soo jëmee mbuur doo jël yoonu boo jë bu croisement jam ñaa jub ko ne jëm yoonu Thiès ah mais bu dee xamoo ko mën nga aw yoonu Thiès mais ma dab la ne man mi na ma bëgg aw yoonu la ne première sortie dem nii du bi <laughs> nga continuer yaa ko tey ah, yàlla yàlla xam nañ ne ñaan leen ma ma may leen mais dafa ne man déggewu ma xam na ma déggee loolu mm-hmm. dama dégg ne fii sama kër la ma fa santaane ko respecté ma fayda mm-hmm. ku ko ñàkk respecté ci ñàkk xam nañ la dellu si boo ko defaatee yaa ko tey d'accord man loolu laa dégg ci yàlla. xam nga yàlla dimension la xam nga yàlla day ju ñu waxul. day ju ñu raxul. su ju ñu waxul nag koy dégg. pour ci kaaw feebar bi. tey bu ñu laajante biir rek yu bari mën na ñàkk. te ku ne gis sa bopp ni sa morom. parce que bu ma nee nii yàlla ma yàlla fay sama xol rek mooy maa ngi xool sama morom. di sama bopp. kon boog lu ko war a mën dal mën na dal sama kaw. dama naan toog hôpital daan sama gars yi maanaam bu tëddee tànk xool nañ ko sax comme comme sama papa tëdd comme sa jabar tëdd comme sa sœur tëdd doo ko mën a faj mm-hmm, mm-hmm. mais boo xoolee diw tëdd rek mm. faj bi demee ne mu war demee dëgg la mm-hmm. ene donc ñun ñi nga xam ñoo nekk ci place fajukaay yi ñu taxawu askan bi et puis di jubbante di wax sans naqar dara nag sans dara mais ñëpp mënuñoo yem parce que ñëpp mënuñoo tolloo mais naqar deret am na xam naturellement dañ naqar deret mais souvent faut les comprendre yaa ngi leen ak doo leen di gérer mais quant à la population aussi ñoom am na ñu approché. parce que ku ci gis loo xam ne jaaxal na la. jégal ci koo xam ne milieu sanitaire la nekk. wala milieu fenn fi wax ko nu mën na diw tel tel tel mais sans nga feeñ sax. Mhm. ñu jege ci ko waxtaanam ne ko euh, gérement ke tel tel nga def tel mhm. ko ndànk rocc ko ànd ak moom seet ko su fekkee mu ci moom. Mhm. ñu isolé ko xool nu ñu ko traité ba mu bu dellu këram. bu fekkee nekk ci moom ñu delluwaat ko këram gërëm nag ki ñu alerte alerté. parce que doo gis aussi alerte ci solo. parce que bu fekkee nit ki seen na loo xam ne lu xonk di ñëw ah xam naa du dara quoi fekk poussière bu ñëw la bu ñëwee day yàq sa kër alors que bu fekkee jóg nga ne ah léegi di de poussière te leen palanteere ak muntu yi poussière bu ñëw na fu mu yem kon fu ñu jàppalante suñu biir nangu déglu ñi nga xam parce que ñoom la seen njàng xarañ ci loolu xarañ nañ te xam nañ lan lañ coo def xam nañ ci loolu lañ jaar a jaar comme nañ ko euh, Mor waxee Baye Mor aussi mhm. am solo parce que il faut les gens ñu am doole yenn mhm. accompagner état aka état mooy yu baree ba tey ci quartier mën nga xool ne sax tey quartier bi lii moo mën a tax ñu aaru ma jël volontaire jël sama xaalis génne ko dem jëndi distribuer ko nit ñi ñu taxaw ci am na ñu toogee. def te yàlla tax def te yàlla tax. yaa ngi ëllëg di nga am fay bi. soo ko amul fii tam na nga ko am fële. d'accord yaa rek a. am ne rek dëgg yàlla ñu ngi koy def si mhm. ah, na ko topp mën na fa jaaree ñenn ñu bay ragal ko. Mhm. wala moom si boppam sax ñu fi jàpp ko ba nga xam ne sax. Mhm. feeb bi war woon dëkk si moom sax mais daf koy def si bopp bi. tooñ daal du gàllaaj waaw waaw xam nga dafa am loo xam ne li may wax rek mooy bu fekkente ni dafa am lu sérieux loo xamante ne gaar na ab askan. Mhm. waru jékki-jékki rek parce que ñun dañoo xamatul kilifa suñ problème li ci ëpp mooy euh, xametuñu kilifa gis nga kilifa du nit moo koy def boppam. Mhm. yàlla moo koy def nit. Mhm. nit ki nag daa am comportement yu nekk ci moom day am melokaan mais day am jaar-jaar yu muy jaar ba loolee feeñ ci moom mooy comme li mu doon wax léegi rek dafa junj lu am solo ci diggante ñaan jàmm li nu yàlla digal ak ndax ñu ngi koy def defuñu ko. Mhm. xam nga fii daan naa wax ne jam de su ko ñaan des koy jëf. Mhm. ndax yàlla mu ñu bind xañu nu jam. ci kaw suuf ndax lépp yàlla na yàlla fay sama xol yow xam nga ne xel ne sa xol rafet na rafet na voilà parce que bu xol bi tilimee nag soo ko ñaanee bu del see ci yow du baax mhm. kon euh, euh, rafet sa xol defar sa bopp defar sa jikko xam ak ji nga am ak ak ji keneen moom nga sam ko loolu buñ ko defee ku nekk bu jotee ci am rek jam am waaye bu fekkente ne nag euh, loolu dañ ko jalgati mm-hmm. kenn ku nekk rek di xool sa bopp gis sa bopp rek mm-hmm. lu ñëw rek nga xool ca ci sa intérêt mm-hmm. bu boobaa ate bi ñuy ate dootul jubbati waaye nekkin bi ñu war a nekk ci kaw suuf si ak ni ñu war a dimbalante ak ni ñu war a jàppalante dootul rafet bu boobaa nag lépp lu ñëw ci ñun dañu xool na ñun ñoo ko def kon yooyu lu am solo la pour nit di bàyyi xel ci ne nañ jéem a nekk ci li ñu yàlla digal ci suñu diggante ak moom waaye ak suñu diggante ak suñu morom bi gën a doy sax nag mooy suñu diggante ak suñu morom parce que suñu diggante suñu borom suñu borom kawe na ci ñun kawe boo mhm. toll ni mhm. jàppul nu pour di fayantoo ak ñun ba tax na mu ne nu bu ngeen tooñee su ngeen jégloo it ma jégal leen waaye nag doomu aadama ak moroom ma la ñu mën a lante daa bëriwul kon nag loolu ak jooju nga xam ne nag yàlla di ciy maandu ci mhm. suñu diggante lay nekk loolu ñu gën cee bay xel waaye boo xoolee li nga xam ne moo xew ci penc mi tey nekk ci deru jàmbur nekk ci as gor wax ko wax a wax wax ba dootul tekki dara wax ko wax a ba ko gisati ne ay cam lu nekk loo xamante ne nii dañ ko waroon a jël di ko uh, bàyyi ko ci suuf mm. ñoom la ñuy jël yëkkati ko ci kaw mooy saa boo juumee ba wax wax bu ki wala nga def jëf li ñaaw loolu dañ ko yëkkati ba ñëpp seen ko waaye li ngay def ci lu baax loolu moom dañ ne loolu sax jarta wax voilà loolu yu mel noon nag buñ ci mm-hmm. àggee uh, jafe-jafe dina ñëw ci suñu biir kon nag yu mel nii nañ jàpp ne nañu bàyyiwaat xel suñu jëf ak suñu jëflante. yërmande yàlla yaatu na boo ko tooñee mu bal la jéggal la si kaw itam nga bañ cee delluwaat waaye sa digganteeg sa moroom moom da ciy dal di mandu kon nañu mm. bàyyi tooñante bee kokkaliwante bi wax dëggee nag yàlla ñoo toll foo xam ne daal loolu dañ ko gis fës mu fës lool. Mm-hmm. ñu ne mekk ko lool si réew mi. tooñ du gàllaaj ñu waat ci xel bu baax a baax li ñu def mooy ànd ak uh, suñu gan Baye Mor uh, lay Ndiaye Euh, thème bi nga xam ne moom la ñu yëgti woon ni ki ayu ñaari ayu bés sa gannaaw mhm. yee ñu génn am loo xam ne dëgg yaa yëgti nañ ko doon ko waxtaane mu amaat leneen loo xam ne dafa yees ni ki alxames si guddi bu ko defee nag gannaaw àjjuma ñu liggéey ñu samedi ak dibeer bi mhm. moo tax démb si altine bi ñu indiwaat li nga xam ne moo si tukkee ndax mën nga si dikkat ak ñun tuuti laat ñuy bàyyi suñu gan mu amal si jàngat waaw muy loo xamante ne nii rek euh, daloon na ci benn soxna bu ñuy wax may Maymuna Sarr euh, mu doon génn ak benn waaye xëy na ki mu doon gënal ku mu jëkk nga xam ne waxtaanoon nañu boo waxtaan affaire mariage euh, kilifa yi itam on nañ ci maanaam euh, lañ doon xaar rek mooy xëy na nekkoon na di jàng mhm. nekkoon na nekk benn euh, formation bu mu doon def ñu bëggoon boo xëy na loolu sotti bu ko defee ñu def seen mariage kooku itam daan na ñëw ci kër gi di waxtaan ak waa kër gi sax ak ñoom jàmm mel ni koo xam ne bokk na ci famille bi parce que ko li ñu wax ne ku takk sëy rek Eh, ak jur nga geneen mbokk gu bees juddu na fa ndax nit ki su la mayee doomam kooku boole na la ci famem ndax mbokk gu yees dal nay dugg kon loolu ndoonu lu ñu ni saroon am nag keneen koo xamante ne ñëw na dugg si ci kër boobu noonu gisante xale boobu moo xam fan lañ gisante waaye daal topp na ko ñëw na ba ci kër gi ne moom la seet si ay waajuram bi ñu ñëwee togg moom gis ko ne ko ah looy dox wax leen ne leen xale bii la bëgg ñu ne ko xale bii kat wax dëgg yàlla am na kuñ ci waxtaanal ba pare te nun ay gor lañu suñ kàddu lañu am wax nañu ba noppi mënuñoo waxaat ñaari wax kon nag bu dee moo la tax a jóg mën nga walbateeku mën nga fee bañ a ñëwaat parce que nag boo fi ñëw kii di fi ñëw du rafet ci seen dër te loolu itam ku ne xam na ne ngor laaj na ko diine nangu na ko eh, kooku itam dal di amal ay kaddu yu mu ak ñoom waaw dal di def euh, forcé pour loolu bëgg a nekk ndax bi ñu ko waxee kaddu yooyu taxul mu dem toog day continuer di dikkaat ci kër gi ci élection mu dellu siwaat fa bi mu fa dellu siwaatee ñoom itam ñu weccoowaat ak moom ay kaddu parce que gis ne jëfinam mu ngi bëgg a loo xam ne nii rafetul ci ñoom waaye kooku dal di leen ne nag euh, tekku leen ci ay kaddu yoo xam ne jot na leen ko wax ba loolu tax ñoom ñu xaw a am jaaxle ci moom ci si xale bii ne nañu jox na ko saafara mu sangu euh, jox na ko caakri mu lekk yooyu yëpp doon yoo xamante ne yu day waar la xale bi xëy euh, takk ay bagaasam dem kenn xamul fu mu dem bi mu demee it moom moom nga xam ne xamoon nañ fa mu nekkoon ci koñ ba bañ fa demee fekkuñu ko fa fekk moom itam dem na kon ñaar ñëpp bu ñu demee da ngay sa day njortu ne kon kat kii lu ñu ko tuumaal ne kii moo yóbbu doomu jàmbur kon loxoom génn ci waaye bu loolu amee nag mu nekk tuuma kenn mënut a teb teb rek waat ne nag lii moo am waaye bi ñuy jokk moom moom def na woon dafa dugg comme dafa dugg xalwatu nag ku dugg xalwatu itam doo am temps di wuyu ay téléphone ak mhm. yooyu dafa am yoon beneen bi mooy euh, bi nga xamee ne tuuma yooyu yëpp am na ñu ciy wax di ci wax ba yàlla dogal nga jëlaat xele boobu noonu andiwaat ko kon loolu day niru ne kon mhm. tuuma ja doonatul tuuma waaye lu mu doonoon yow la ndax nag si waat nga ko moon kon yow la ñu mën a wax ne fu mu nekkoon xam nga ko. te loolu sax dañuy mel ni kuy waxal ki nga xam ne wala nga xam ne dañoo toogoon naa ne waa moom mooy ki ko yóbbu. waaw kay waaw pour parce que. xam nga tontu bi am saa boo tegee dañ naan ah est ce que xale bi. demul dem boppam waaw parce que kooku tuuma la moo tax bu njëkk ñu ne tuuma. waaye léegi doonatul tuuma. Hmm. ndax euh, li confirmé ne doonatul tuuma. Hmm. mooy andi nga ko tey bu ñu nee euh, téléphone réer na ci kër gi. Hmm. ñu ne diw woon na fi. diw ñëwoon na fi tuuma la. diw mun na kaa jël mun na kaa ñàkk jël waaye diw moomu nag bu delloo see téléphone bi nag. booba mënatu dee setal boppam moo tax moom indi na ko fekk barab sangam coow bari na li nee na kur waaye lu jiitu loolu yóbboon nañu ko ci wàll yoon mhm. gannaaw nag yoon daf ci amoon wàll mhm. bu yëf yi feeñaatee faaw mhm. itam nga delluwaat ci yoon xamal leen ne kat moom dafa woote jékku-jékku rek ne jimeet daal dina ah, indi seen seen doom de mhm. dafa jokkoo ak ñoom nee na dinaa ko indi dinaa ko mhm. indi kon am nga temp pour mën a ko ak wàllu yoon wax leen neel ba sàngam mhm. wala waxtu sàngam dana ko indi bu ko defee nag ñoom ñi ñoo mën ko teg loxo teg loxo bi nag diggante bi yàggul la ñuy wax dañ ko bàyyiwaat parce que dama njëglu njëkk wax mooy que gune gu jigéen gi majeur la am na nu ma waxee dema mais yow wax nga ne d'accord si am na lu tax très bien xam nga euh, euh, je d'abord commence par kon yi parce que nit ki bu ñuy ci kër gi. du seet tànk mu ne kii moom mooy yëkkati. ñu ko am na ku fi ñëwoon. war foofu d' abord. waru ñu wax seen doom mu ñëw toog. donc dégg nañ la bu baax dëgg nañ sa kàddu. suba na nga fi jaar su su ñu wax doom. ne ko diw du ñëw na fi sànq. dina yow lay seet. lii moo ko fi indi. te réeréewu mbir ne wax nañu ak diw ak diw lii lan moo sa xalaat. bu waxee loolu xale bi xale bi ne leen man de kii laa bëgg wala kii laa bëgg ñoo xam fan la ñu féetee ñene defuñu loolu dañu ko demal toog bëggeel nag mën nga ko posal nit mais mënoo am doole bu mu téye boppam moom yaa parce que l'amour est plus fort que tout coolee bari rek mais bëggeel parce que liñ naan souvent nit dafa bëgg ba rey dañuy fàtte ni kooku rey li ko dal bu la daloon sa xel toll na sam nga def li mu def yaa ngi important kon boobu bu fekkee def nañ loolu xale bu góor bi mu dem toog naan dem mu ñëwaat forcé waat damay gis mbëggee la ma ko indiwaat nga jàpp loolu nga jàpp waaw mbëggee la ma ko indiwaat xam mbëggee la ma ko indiwaat ñu ne nañ jox na ko caakri jox na ko sangat jox na ko lii nañ maanu yaa dégg parce que xam nga aussi na may dégg souvent ci affaire sëriñ lu bëree bëri loo xam ne par exemple bu fekkoon vraiment réellement am na. ñu ne ma coupe d'Afrique bi fi Sénégal. yaa wax lii ah, ah bu ñuy xeexante ah, la rek. waaw ah. bu ñuy xeexante xam nga. waaw lu ñuy xeexante xeexante xeexante. bu yóbboo sëriñ yi ñuy xeexante fii pour ñu bañ a indi coupe bi fii. Mm-hmm. mën nañ ci am koo xam mën na génn wala ñu ràññee ci koo xam ne. mën nañu indi coupe bi fii mm-hmm. mais d'accord. Mm-hmm. Sénégal lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee. mën naa leen ko nangul. yaa ngi mais ñoom tam mën na jóg seen doom bi bi seen doom demee. ak âge fekk waa ji. parce que waa ji jël sukkar moom moo dem. xam nga def xëy na gisuñu xale bi. nañu joxante dig daje. waaw joxante dig ba tey moo dem rek. et ma majeur est vacciné. on considère moom moo dem ak sa conscience. dem na fekk na waaj ji. waa ji téléphoné leen bi coow li bari na téléphoné naa ko indi. indi waat ko. ba tey def na devoir am. moom ba tey def na devoir am su ko defoon téye ko fa. te yoon du ci man dara xamul tax. Ah. xale bi il est majeur. waaw ba ci. maa ngi ñëw xam nga xale tey xale bu am 17 ans bu ñëwoon tey jox la 1 million. jox la 1 million xale bu jigéen soo ñëwoon jox ma 1 million. man tey mhm. bind kay ni man maa wax nga mhm. mm. ma. Ah. Mhm. dañ may tëj. xam nañu may tëj. dañuy concerné xelam tolloogul fu mun a bañ fu mañ nangoo. yaa ngi dégg kon mooy bu ñu calculé ne xelam nag toll na fu mu bañ fu nangoo. su demee fekk ko dañ naan moo ko tay kon boog li desoon tey moo doon tey bu fekkee or mi da ngeen yaakaar dañ ko liggéey moo tax mu dem éducation parent ñun kilifa yi am naa souvent rek euh, xale yi defuñu dara les parents yi la parce que xale yi ñoom créewunde dañu fekk fi rek dund ci dañu fekk ci rek dund ci kon bu ñuy dund ci lañuy dund la ñuy fekkee simple lu baax lu bon ak contexte mondial li mu demee tey ak inform euh, euh, kii technologie bi mu toll tey. ak yëpp dafay favoriser yu bëree bëri yokkal nañ lañ fi fekk. kentik yi. yokkal nañ fekk donc parents yi ñu war a jël ay mesures. si ay doom parce que doom bu fekkee ñeme na par exemple sol sol woddoo ci biir kër. génn ci mbedd dindi sër bi lem du ko saagam. dese leneen kiloton wala leneen fay la ci éducation. mais am na xale yoo xam tey boo leen doon may àddina la ci biiram. bugg leen leen soloo kilot bi ci mbedd bi di nga ko mën a sol. day mel ni seen parents seen kanam jàkkaarloo ñoom. ba muy éducation mu mat. kon édu fay éducation parents yi lay gis. mais dugagum ci affaire sëriñ. waaye des fois dëgg yàlla waaye itam leneen ñëw bëgg leneen ñëw ëpp doole loolu éducation bi. comme lan ah, mooy li li nga xam ne nee nga dugg góosi ma dégg naa sa biir wax. nga ne baatu maandu. je pense que bu dee nit ki dafa ne ah am naa ya est-ce que est-ce que ma baatu est-ce que. nekkul daf ko jox dara est-ce ko détourné est nekkul laa ñoom ñoom ñoom ñoo ko wax te ba ñu ko waxee itam laaj ñu sëñ bi ndax ndax tax nga jox ko mu sangu te ñun yëguñu doomu jàmm lu duggee ba si biir këram nga koy jox saafara mu sangu mu xamal leen ne boppam morom metti moo tax ma jox ko saafara si biir kër yaayam ba tey ba tey faay ngi ñëw ah, si naka parce que sëriñ ñëw sama kër ba mën a jox sama doom ah non sëriñ nag kaay ah, nag kaay ba attan xaaral ma wax la am na droit bëgg <laughs> sëriñ bu bëgg la mën dina baatu sëriñ bi sax xam dama la loolu xam dama la sama jabar ma xam day njaay tey doomam. bu ko sëriñ joxoon saafara bu ma sànq ko ba ma sànq dina nekk fi woon. dama ne non dina ko ba yaayam mu wax ak yaayam. ndax sa yar na ay doomam noo xam ne ñemuñ exécuté lenn te wax ak moom. yaa dégg. danañ ko ba mu ñëw ñu ko yaay kat diw moo ñëw jox ma lépp ma sangoo ko qu'est-ce que tu yaay ñu ko sangoo lool bu sangoo. bu dee loolu moom moom xel mi nekk waaw léegi. Euh, mais xam nga xel mi nekkatul la xam nga. ki génn kër gi dox ba fekk waa ji ci mu nekk. Hmm. man du ay xel doo ma ko mën a nangu. ah, ah yow ah, kon yow gëmoo la ñu war a. daf mel gëmu ko de waaw xam nga dafa tàmbale hmm. ci mbëggeel man dama bëgg bu fekkente ne comme li ñuy waxtaanee. Hmm. Euh, ponk bi mu gëm. nañ ko nangul gëm mais nag euh, nañu waxtaan ci li nga xamante ni. Euh, lu ñu xam la mooy mbëggeel la tudd. ñu mën a wax ci mbëggeel. xam nga xale bi nekkul ni ay parents. ñoo lijjanti benn waay fee ne ko kaay pour wala dañoo ay mboq lañu wala dañoo ay kolere lañu pour ñu bëgg ko may seen doom demeewul noonu xele bu jigéen bi moo bëggante ak xele bu góor bi xele bu góor bi ñëw ci kër gi waxtaan ak ñoom du ñu ay mboq de ku njëkk ki njëkk ki ñoom itam ñu ñu xam ne bëgg na seen doom seen bëgg na ko seen doom bëgg na ko ñu waxtaan ak moom ci affaire mariage ñu ne ko nag kii dafa am ku xam ne def ñu dimbal fayal ko. pour mu def formation bi kon bëgguñu mu yàq loolu. bay moo motion bu ndaw rek. waaw jiitu taxul nekk njiit. xam nga kooku. yow xam nga dégg dañ leen nettal rek ngay dégg. mais xamul nu leen téye ba tey mbir mi ak xamul ban influence la xale bi tax ba attaché ci waa ji est-ce que bëgg na ko est-ce que du kii la bëgg moom. waaw foofu lañ bëgg a dem. bu ma bu ma waaw bu ma daanelee peut léegi. kii di di di ñëw ci kër gi di fi fréquenté. Hmm. di ñëw bu ñëwee ñu toog ataaya waxtaan comme ni nga xamante ne noonu la way juróom bu jigéen expliquer seen diggante. Hmm. xale bu góor boobu mu doon bëgganteel itam jot nañu ko taataan ay kàddoom am lu ñu weccoog moom ci mbir mi ndax bi xale bi demee am na ndax metti na ndax choix la defam yombul léegi moom itam xam la ne xale bi xamu ko woon ci. di def euh, ñaari kii ñoom di di di mbaraan ak def. yu mel noonu xale bu yarul la woon daal bu yarul la woon toogoon kër kër yaayam ndax boo gisee li ëpp ci li mu daan gisanteeg waa jooju noonu ci kër gi lay nekk. kon kon kon loolu nekk na luy confirmer ne xele bi am na nu mu meloon waa ji nga xam ne dafa ñëw bu fekkee mbëggeel la parce que foofu ku ci nekk responsabilité bi nga ci am bu xele bi def itam yow mi nga xam ne yow lañu bëgg am nga sa responsabilité lu tax mooy xele bi bëgg nga ko ñëw nga ci kër ay parents nee nañu la am na ku ñu waxanteel. te yow bëgg nga xale bi est-ce que dangaa war a forcé ci loo xam ne une semaine la toll ndax diggante boobu yow parents yi sax xam nañ la xam bu toll ni ñu waroon laa mën a jox seen doom wala yow xele bu jigéen bii nga xam ne yaa ngi doog a xamanteek moom xam nga ko xam bu toll ni nga war a jóg ba mën a def axe yu mel noonu ci kaw tey bu ñu la waxee lii moom xele bi bu la bëggee ba nangul la parce que loolu moom xol la ne nga kenn mënu koo nat fu muy toll mais su demee noonu yow mi ñu bëgg yow yow xanaa war ngaa am dara loo xam ne kii yaa ko ko tane ndax dañuy wax ni eh, eh, rijaalun xawaamuuna ala nisaa loolu la ñu yàlla wax góor moo ab kattan jigéen ci mën a dékku yu bari ba tax bu ñuy denk nit ki soxna sax dañuy soxla ci euh, euh, góor boobu noonu mu tànne ko ci xel tuuti ak boo ñëwee sax bàyyi moor ak boo ñëwee sax bàyyi moor bu ñu waxee boobu bu ñu waxee loolu li foofu mooy xam nga kenn mënut wax ne maa gën a góor wala jigéen a gën a muus mais dal ak su su su dara ñëwee ne tës ci sa kaw mm-hmm. li li nga xam ne dina gaaw perturbé jigéen góor daa war a am dal gu toll ni parce que tey loolu lenn su dara gënoon fii tey rek lu jaaxle caba eh, mi lu muy jëkk wax ah Baye Mor hmm. c'est ça parce que loolu mooy li nga xamante ne nii mooy lii normal mooy góor nekku fa la ñuy wax xanaa góor nekku fa kon kon loolu am na lu mu junj loolu may wax noonu foofu la jublu kon eh, moom waroon na am mat gu toll nii bi xale bi jógee pare pour génn pour pour ànd ak moom ci loolu mu ne déedéet man dama laa bëgg ku bëgg nit di nga bëgg lu ko sagal ku bëgg nit di nga bëgg lu rafet ci moom la ak quel que soit li nekk ci ah. moom. soo nee naa am na droit ah. bëgg. mën ko naxante ay kili ay na dina jafe sax. ku nga xam ne yéen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu ñaan ak yooyu. Ah. mu ne dafa bëgg nit nit ñi nangul ko ko yaakaar lu naturel la. Mhm. parce que mën nañu jàpp ne xëy na la mu àndal la dafa def loo xam ne moo tax xale bi topp ko. am nañu droit bëgg loolu te foog ñu wax ko. waaye bu ñu demee ba ci biir gis ni leen lii moo si ci toftalu. Mhm. parce que am nga droit itam mhm. boo bëggee nit. nga ñëw sa ko pour ñu may ñu ne ñu xamal la ne kii am na ku muy bëgganteel ba jote waxanteeg sëy ñetti at ñoom ñaar génn nañu ko li tax que mu yi tax xam ne am na courant yi tax mu toog ba ñetti at parce que da doon def ko ni sëram di ko topp xaar ba lépp pare bëgg ko dakkal li nga xam ne moo di njàngam léegi nag yow xanaa kooku yaa wax dëgg yàlla bu dee égoïste oo di ah bu man la man la ñu def ma ko du ma neex gannaaw wax nañ ma la kii moo la jiitu ah yaa xayti kon dama seeti keneen loolu du nangu ca boo li olof ñaane na xol du mu ngi koy bës. Oh, du ba ñu koy bës mu ngi koy bës. Mm-hmm. xale bu waajoo ju ñëw ci kër gi. waaw te bu ñëw ci kër gi. kon xale bee ko jox adresse mu ñëw ci kër gi. su ko ñu bay côté yooyu moo ko jox rek mu ñëw ci kër gi. parent bu ñu wootoon doon seen doom waxtaan ak ñoom ci diggante. Mm-hmm. kanam waa ji. Mm-hmm. am na. duñ waaw non mais da ngeen ne premier jour dafa ñëw ñu waxtaan moom ne ko bu fi ñëwati parce que. lii la le lendemain bu ñëwaat. dañ ko njëkk boole seen doom dañ ko njëkk a boole seen doom ne ko wax ko bu mu fi ñëwati. ci lay jiitu waaw léegi wax ko bu mu fi ñëwati. waaw parce que mu ñëwaat. Mhm. ñoom ñu woo seen doom teg ko mu ñu ne ko kii non xam nga euh, kii caba. mais seen doom nangul wax ndeysaan dafa dem ba muuma. mais il faut mu wax ñu jéggal ma si ñi caba caba nekkatuñ 64 1964 on est en 2020. Hmm. waaw waaw on est en 2020. daf si am yoo xam ne par exemple tey dafa war di leer nañ bala nga ciy def. Mhm. tey mi ngi mel ni dama euh, euh, ne da ngay constater tey mariage yu tey. Mhm. les quatre-vingts pour cent des mariages d'aujourd'hui yëpp mhm. raison la mais du sentiment. du mbëggeel raison la. lii moo tax ma dugg ci. mat naa ko moo tax ma dugg ci. dama ci toll moo tax ma dugg ci. intérêt daal mais mën naa ko taxul ma dugg ci. te mën naa ñàkk boobu mën naa ko boobu ñàkk nag. moo di tas su baree bare tey. je n'ai rien contre dama maa ngi na mbaa gars yi. Ah, ay déedéet. <laughs> yaa ngi dégg euh, mbëggeelu xale bi. man condamné wu ma kenn. mais mbir dañ ko war di ko war di waxtaanee. parce que waa ji ñëw indiwaat xale bi su ko defoon téye ko fa. te yoon may na ko. kenn du ko teg kenn du mu téye. pourquoi. mais parce que xale bi elle est majeure ah non man du ma juriste. Mm-hmm. wax dëgg yàlla sama xam-xam màccul jëm si wàllu yoon waaye nag wax dëgg nag yàlla am na loo xam ne nag. ah, ah war nga ko mën a xam. Ah. bu dee mineur la. Mm-hmm. ñu ne détournement mineur la. Ah, bu dee majeur na. te yow nga jël ko. yaakaar naa ne non non non am na. Mm-hmm. enlèvement am na. parce que ay waa këram yëguñu. nga jël doomu jàmbur yóbbu ko ne men Mm-hmm. Ah. loolu fu nga teg ko fa ñu am nañ fi juriste nag Papa Ndiaye suñu juriste maison waaw lan lañ tuddee séquestration wala violation. wala enlèvement. waaw mooy ñaar ñu ànd sans consentement des deux. Mm-hmm. sans consentement des deux et que ñu nekk âge majeur limite majeur. Mm-hmm. bu ñu majeure kenn du ko considéré loolu. séquestration day ah, am de da ngaa jël yow mu ñu. mu doy waar. waaw moo demoon France tey. Ah. yore un milliard sama poche. un milliard waaw ah, ah, droit takk ñaari jabar. mais bu ñëwee Sénégal bi cinq cent mille mën naa takk quatre. parce que loolu lañ suñu yoon may. ñii leen la seen seen yoon may. xale bi fi amoon tey euh, euh, Gambie yaay jame moom ba ñu exécuté woon fii. Hmm. parce que loi bi moo laaj loolu. mais ñu ñu bari ko naqarlu fi. métti lu ko mais loi moo laaj loolu. dafa naa dund ci dëkk ba xam ne lii la loi bi laaj. xam nañ ñu ñëpp ne loi bi joxe na par exemple dix huit ans. Mhm. on cause jusqu'à dix huit ans mineur. Mhm. après dix huit ans on cause majeur. ni ki nu mu def dañuy xalaat ne moo ànd sagom def ko. waaw léegi loolu bu jamono la mais am na yoo xam ne nag léegi nag gannaaw ah, jamono léegi dafa dafa dafa moom yëfi dafa waa yëfi jamono fa mu nekkoon nekkatu fa. wala waaw ah léegi nag ak yi si dëkk ñu nii. Ah, wax dëgg yàlla waaye jàppal ne daal ku tàggul waa comme jàmm jël doomu jàmm tànk tànk da nga yaakaar ma far nii waaw bay ñu ngi jàpp liggéey rek ah waaw bu dee am na nag. yaa non d' accord. tubaab moom xamul loolu moom. Ah, non d' accord waaw man dama tubaab. non non nit ñoo nit ñu ñuul li ngay wax. si si yëpp tubaab la ñuy la ñuy sukkandiku. yaa dama ne. waaw xam nga tànk ñu dund loolu. gëmloo ko doom. gëmloo ko xale yi. xale sax dina def dara dañ ma liggéey. xale dina def dara dañ ma liggéey. yaa dégg daal. waaw nit mën intention doon jox minute sax benn sarax wala dara sax. ragal ko jox parce que ren su ma ko joxee sax est dem na ma ko liggéey. léegi beneen xale itam si wet ga. dina toog ne man kat gannaaw man lii bu lii su ma ko defee léegi xale bi may war a seqal moom majeur na kon boobaa dara ma si mu jël doomu jàmbur ne mes ne menteng ak parce que doomu ah, jàmbur nangu ay parents ñu am seen doom yóbbu ko. waaw euh, fay loolu fay la fay la kay. waaw ah, moom gëmul sëriñ bi moo tax. waaw ah, kay waaw. waaw euh, dina nag mais c'est bien muy wax nii. côté éducation lay wax. dans les normes noonu la fa war waaw que balaa ñu kenn bu la joxee dara. balaa nga koy def foog nga yëglu ak nga nga yëgal say parents ko waaye day fekk nga tay ko ànd ak sa sago day fekk ñu yare la ko sa sago day fekk ñu yare la ko waaye sago bi bu ñu ko yóbboo ko dama naa ne par exemple sama doom bi maman mi suñ ko joxoon dara mu sago ko bala mu sax ne ne Nday mais sama jabar ñaana yàlla mu tay ko yaay ay bu ko tay ah, yàlla ko yàlla ay maman yàlla na la yàlla muccal li ma bëgg ci ci ci wax ji rek mooy euh, nangu na euh, euh, xale bu jigéen bi ci yar bi baaxul ay kilifaam saggan nañ waaye ku góor ki nga xam ne mooy yobb mooy ànd ak moom moom kooku moom ab yaram rafet na wala ay fara ah, moom li kenn ah. parce que foofu mooy wax ji wax ci ah. a ko juger ni bon na mm-hmm. mm. dafa am lu ma bëgg ñu xañ ko ko eh, ah non non léegi bu ko keneen jiitu nag du yoon non ba bay jiitu. bay jiitu ah jiitu du njiit eh. mm-hmm. dama ni jiitu duñ jiit. léegi bu fekkente ne da ngaa fekk. Ah, koo xam ne waaw mu tax lu mu jege. déedéet laaj ñu laaj ko rek. dama sëy na ko waaw dañu nit boo la nga xamul. sañ nga ko laaj ñi ko xam. Mhm. su fekkente ne ki nga xam ne da da dañ koo marié mais amul ay papier. Ah. maanaam maanaam mariage bi demul eh, ci amuñu certificat de mariage. waaw ah. waaw dem nañ ci jàkka ji. on considère comme le papier. waaw on considère comme le papier. waaw considère nañ dem nañ ah, jàkka ji waaye bés demee ba ba am ñu war ko kii moom day métti waat. on considère comme le papier continuer ba pare. on considère day taxawal a leer parce que benn point la bon bu ñu ko rombee daa am ñoo xam ne dañuy seetaan. te it daa am yu bëri luñ ciy jëlee. kon loolu bu ñu bu ñu foofu rek bu ñu nee dem na ci jàkka ji. te mm. amuñu certificat de mariage. Mm. ba léegi benn papier dafa jàkka ji defalu leen ko. Ah. boo xam ne mën nañu ko wone loolu it andiwaat na beneen wax foofu. waaw léegi mën naa am coow am ci biir mm-hmm. sëy boobu mm-hmm. noonu. ñu ne euh, sëy bi kat. yoon reconnaître ko ndax xamuñu benn papier boo xam ne wala bel na seen diggante sa jëkkër sa jëkkër wala parce que man mën na maa jóge fee ànd benn soxna mhm. ne kii may nañu ma ko ci jàkk sàngam sama soxna la te fekk na tàkku ko léegi loolu mën naa andi jixi-jaxa moo tax ba ñuy wax comme dañuy dañuy leeral dañuy seet angle bi nag bu ñu rombee benn day dañuy laaj ëllëg ñu del siwaat fa mhm. kon loolu benn affaire moo ci nekk kooku léegi nag su fekkee ne sëy boobu takkoon nañ ko ci jàkka te amul kayit yooyu noonu man ma gis xele boobu noonu bëgg ko mu bëgg ma parce que comme ni nga koy waxee nii sëy bi takkoon nañu ko ci ay raison mais nekkul mbëggeel moo taxoon jigéen sonn na euh, kii dugg na ci sëy bi ngir leneen ngir leneen gis na ma bëgg ma léegi mu paree moom ànd ak man ndax man bu boobaa man tam moom ma mesure na am na droit ànd ak man ma dem loolu dara lu ma ci fekk ci yoon parce que yoon li muy reconnaître mooy comme amoon na kayit d'accord na ne sëy bi valable na léegi amul euh, amul kayit sëy bi kon valable ci yoon léegi tey ndax dañ koy atte foofu wala déet parce que bu ñu jëlee exemple ci ne xale bi hmm. majeur na war naa mën a dem ànd ko neex hmm. loolu bokkul ci suñuy aada. Mm, mm. te dañ ne am réew bu fekkente ne. bokkul suñu valeur. waaw kay mm, léegi nag nan la ñu war ma de parce que bu ñuy wax xew-xew boo xam ne dafa am ci penc mi te doon loo xamante ne nii euh, lu naqari ñi koy dégg la. ndax neexuma. neexu la neexul keneen. ku ci nekk da ngay seet sa doom boo ko yaroon ba mu toll fi mu toll. boo ko yaroon. mu demee noonu waaw yar. waaw yar baat nekk ak yar mooy yor ba mu mag rek ci ci gàttal ci wax parce que tey te des bi set. déglu déglu waaw waaw pardon ñu jàkkale tuuti ñu jéglu gis nga nit ki mën nga koo yar waaye li dox diggante liy tourné xelu doomu aadama. Hmm, dafa gaaw loolu dafa doon loo xam ne mënatuñu ko wérante ci réew mu maa la ko wax barki de mooy njaay lañ def. Sénégal koo xam ne ci këram la nekk. waaw nit ñëw parfum ni jigéenu wérul la dafa ñëw di ñaan toilette voilà kooku parfum lañ ko dóor ci loxo bi mu ah. fon ko <laughs> ñu ne ko sa loo yor ci xaalis mu dem gëne sa compte banque mu ànd ak ñoom retiré teg ci seen loxo kooku da nga wax ne bi muy dem di retiré ji nekkul daf dof nit ku nite la koo xam ne mënoo koo gis sax xam ne da nga naa ay soxlaam lay lijjanti am na ci droit mais ñooñu lan lañ ko def ba mu jël alalam dem kon oh, moom gëmul ki def loolu li ñu ko war a na xar fa xuuf waaw non non loolu moom mën nga ne ko waaye waaye hmm. waaye gëmuma ko ah, nee na gëm na ko waaw mën mën na si ko ñàkk wax ci réew mi ah, réew mi ne gëmuma ko kon nag dafa am loo xam ne bu ko nit ki defee dañuy xool fay xam nga bu fekkonte ne euh, ci biir ñoom bi ñuy ngoro oh, far wu jekk bi bi mu fi nekkee keneen kii dafa amoon relation ak xale bu jigéen bi ñii gis ne xale bu jigéen bi lekk léeg kii ñëw toog mu bàyyi ko fi gën dem bu boobaa dinañ jàpp ne xale bu jigéen bi kat xëy na ak mbëggam fale la oppee te ñu def daan gunge ñoom ñaar mosu fa daje ñoom ñaar mosu fa daje premier jour daje nañ fa bi fa ñaari góor yi waaw après mu doon waxtaan am pat ndeysaan kay waxul dara moom kan waxul ku njëkk ki ku njëkk ki man ku njëkk man soo noonu lu ma takk te dañ ko daan gunge li tax mu takk bàyyi ko mu takk ko da ko bëgg non parce que man bëgguñu ma. aywa bàyyi li ngay wax bëggoon na ko. non non lañ bëgg. xoolal buñ dëttunee xelam kay dañ ko bëggati tabarkaal da nga daan gunge léegi. gunge ko mais na wut na mu dëttunee xelam boobu kon. anu ah, mu koy muy fay boo fayante boobu. non comme sëriñ la rek da sëriñ la. non kay mooy sëriñ ñaareel ba. waaw dama ne kële na wuti sëriñam bu ko dëttunee ah, xelam. waaw loolu mu jëw métti. amul sens ah, xam nga. grand euh, Mor léegi nag jikko léegi nag fi ñu fi ñuy jëm foofu comme ci jikko lañ doon wax ak yar xale bu jigéen bi bu fekkente ne ay parents saggan nañu ba yar bi war a nekk ci moom nekku ca matul ku jigéen ki kon ne gi ñu sàgganuñu parce que niñ ko dalee yow non dama ko dama ko bëgg a bu mu la parce que moom suivre lool waaw d'accord mais mais ni may dafa dafa dafa yërëm doog lan la non lay kii yow man farlu ma fenn gis jigéen yaa non da ko yërëm non da ko yërëm non du loolu c'est pas ça man du ma faral laaj ko man bu ma koy dal man fay ay mm-hmm. affaire si je comprends si je comprends yow mën nañu la liggéey feneen ah mais euh, ça na ko bëggoon toog am na ko bëggoon jóg wala ah. wala jàppul bàyyi ma bàyyi ko ci biir rek waaye kon nag mënuñu la liggéey mënuñu la liggéey kooku du ko du ma ko joxe. déedéet waaw parce que ah, a <laughs> jàpp li nga xamante ne nii mooy moom laa lay fekk ci ci ci sa wax boobu hmm. noonu man toujours damay wax ne ku góor ki parce que moom bu fekkee ne dañ laa bëgg yow itam war ngaa bëgg ki la bëgg xanaa ba jaral la mu tàggale ko ak ak njabootam mu jóg tagale ko ak famem bu fekkente ne dafa amul éducation nga wax ki ci ni nga wax yar bi daa matul ku jigéen ki yow ku góor ki ah. war ngaa am mat mhm. war ngaa am yar mhm. bu tol ni mottali ko mattali ko rawatina nga nekk koo xam ne dañ lay wax nga yënguti ci wàllu ñaan nga xam ne yow euh, jàpp nañ ne euh, fii ci Sénégal lu ne mën nga ko fee wax waaye affaire sëriñ moom kenn mënu ko fee sikki kon bi nga xam ne moo xam nga yow. xam naa waxtu waa nga xëcc jëm si. xam nga man xam li may métti mooy. lu lay métti <laughs> waaw da nga yokk comme si doon yow. non <laughs> da nga yokk comme si doon yow. ah bon nekk yow xam nga tax. waajee. amul kattanu xel bu attan boo tax mu mën a jàppale xale bi ci kaw di koy gaañ. moom mbëggeel la xool. ndax mbëggeel wala xemmem la. mbëggeel mbëggeel xeetu mbëggeel daa bari façon de. waaw nit nag doomu aadama nag. doomu aadama nag li ko wuutale ak mala ah moom xel mi la foofu mooy mooy diggante bëgg ak xam li nga bëgg nan nga ko war a jëfandikoo mhm. ak ba ba ba ñaaw foofu la foofu la affaire bi nag moo xamoon luy mbëggee bu fekkee ah, yow luy mbëggee gis nga ah, février bi jàll na ñu ngi si marché ba pare ñu si jigéen rek euh, dama lay expliquer tuuti rek <laughs> mën ngaa di nga fekk koo xam ne takk nañu ko am na boroom kër mbëggeel boobu dal la ci moom. am kenn ko bëgg que doo est-ce que sa xel bi doo ko doo ko dem na rek dama koo bëgg rek. kooku na muñ nag ngay mbëggeel waaw loolu day am. Ah. mais dama koy wax ne ko nit ki naa bëgg bëgg moom kenn aayewu ko. bul jaayati jar nga bul lambati daj nga xol fu muy jëm na xel di jiitu mm-hmm. surtout parce que xol bu jiitoo dafay mel ni oto buy daw ci lëndëm te amul mbëggeel ci xol la nekk mbëggeel ci xol la nekk déedéet xel la nekk non non xel <laughs> kon xel bi du ah, xalaat déedéet xol mooy bëgg mooy bañ xaañ déglu ko ñu ko léegi lan mooy ah, bëgg xam nga nekk ci xol waaw ñun docteur yi waaw bu ñu la opéré dina mhm. monté la bu pôle te pôle no bon Elisabeth soo jógee du no Elisabeth mhm. nga ne ko nga ne yéen docteur yi bu ñu la opéré dina sa xol waaw monté la xolu pôle waaw te pôle no bon Elisabeth waaw boo jógee doo no Elisabeth pôle eh, waaw xol boobu ci ban sang lay dox waaw ah. xamata nga li nga wax ah, xamata nga li nga wax waaw anatomie physiologie ma mhm. mais le cœur n'a pas de sens. il ne sent absolument rien mhm. bëggul def dara. Mhm. tout était là. xel mooy bëgg. mais bu fàtte ba mal newoon na fi l'amour est une maladie que qu'aucun docteur ne peut soigner ah. moo tax on parle de finir. <laughs> waaw léegi moo tax on parle de finir. parce que li nekk ci xel. non li leen docteur moo tax ma docteur mënu ko soigner li nekk ci xel. waaw mais li nekk ci xel kenn mënu ko finir rek mu jàll. non non non déedéet non. waaw xam nga ne par exemple que mbëggeel. for na for goo xam boo ko mën définir rek bëggoo. boo koy boo mënee lii moo tax ma bëgg. rek bëggu léegi soxna Ndeye Ndiaye man gëm naa ne ba tey yow yaa ngi si bëggee ndax li nga sol